man la ñuy woowee Souleymane baax sama âge bi mooy dix-huit ans laa am ni waaw Guinée laa waaw mais fii laa juddoo ah mais Guinée laa yaroo dégguma noonu woon saa olof bu baax baax mais ay Guinée laa fi nekkoon mais maa ngi def ay prestation yi l'homme serpent la ñuy woowee fii lu may def nee na defandiroo ak serpent daal yaa ngi dégg mais lii saa tuddee mas man sama bopp xale yi moo tuddee programme bi ay kii géejawaay Malika fii damaa demoon foofu fekk ay gaay yu bëri ay ñu ngi ay def ay fecc ay lune daal mais ba jékki-jékki rek man tamit ma def rek benn affaire rek ñun ñëpp tiit waaw yow sa surnom bi lan la xanaa li ngay def nii xanaa yow mooy jaan nga mais man comprendre lan mooy jaan daal xaw ma yooyu moom xaw ma ko woon si olof bu baax a baax mais ma laaj sama mbokk yi ay pour le foot ay moo ko waaw ñuy lu ma may posé nee na ah, na yow mooy mboddi daal mboddi mooy si pël vraiment ko ah mais man tuddee ma mboddi man tuddee ma jaan daal sama sirno bi laa kii mais man damay ruusoon def si si kanam nit yi quoi lii moom xam nga rek fooguma koon damay kii man depuis laa nekk xale bu ndaw lii moom jànguma si dara depuis laa nekk xale bu ndaw sama tànk bi day ñëw yenn saay damay nelaw daal tànk yi ñëw fekk ñëw sama sama kaw bopp bi nii man foog ma koon xam nga rek sa yaram soo nangee rek da ngay kii loolu la quoi depuis laa nekk xale bu ndaw damay fooyee sama papa nee na waaw doo def ndànk balaa ngay damm sa yaram bi lii lii lii lii kenn lu ta da koy def lii mais soo ma deful sax sama yaram bi day métti il faut que ma def waaw waaw sama yaram bi day métti waaw waaw chaque jour noonu laa ko def noonu laa ko def ba ma jóge Guinée ñëw Conakry def fa ay mécanicien jóge Conakry demaat Friton mooy Sarlon waaw foofu ay fasul laa fi nekkoon quoi fasul liggéey woon ma jógewaati Sarlon après ma ñëwaati Sénégal jamono jooju ay ay kii treize à la amoon na ah, instant huit à am bu la mun naa toog fii un an ma def soo ma wooyee léegi ma def lu gën a garaw man daal spectacle rek sama jinne bi si spectacle la ñeme daal instant ni soo ma waxee fii ma def nii dara li ngeen toogee nii kese du ma mun def mais soo ma woowee rek ba nga teg caméra sama bopp bi day koom ku koy tourné daal loolu moom <laughs> yàlla daal na yàlla moom ma ko waral si affaire loolu moom tey yu ma jóge woon gine ñëw fii ma wàcc rek sama yaaye musu koo xam damay def lii sama yaay ma Sow la tudd yombol fii la nekk mais mu fekk ma maa ngi nelaw man ak doomam mais doomam yeew na ba dem école après mu mayee ni pour ma julli mu ñëw rek fugg porte fug fugg ma yow fekk maa ngi nelaw xam nga kii la kii basan bi mu ko teg sama basan bi ni mais man dama nelaw daal tànk yëpp mu ñëw sama kaw bopp bi comme kii daal moo tudd moo koy waxee kii fi ngay tegee sa bopp bi ñaga ah, merci janga njaay ñi sama tànk yëpp noonu la ñëwee mais maa ngi nelaw nelaw bu métti tamit dérangé wu ma ba jékki-jékki sama yaay dindi affaire bi rek gis ma daan sama rakk yaay la quoi comprendre nga daan daw nee na Thierno dee na dee na dee na après ma yeewaat rek ma fekk ñoom ñëpp mu ngi taxaw nee na yow yow yow booy yow fii lii fan nga ko jàngee fan nga ko munee lii lii lan la après moo ko ah man da kaay depuis laa nekk ne la lay defee ay programme yi nee ah lii moom du dégg yow moom suñu mbokk yëpp yow kese mooy def comme li ngay def nii man ñemewuma la de mhm. après ñoom ñëpp nee na ñu expliqué mais ba léegi ñoom ñëpp gëmuñu sama yaay ba ma ñëw sama ménagère kaay woon sa bopp awali mooy sama ménagère comprendre nga tey ma jógee woon kii noo tudd si géej bi ma ñëw rek am naa sama benn oncle ku nekk allemand mu ñëw rek nee na ah yow li ngay def nii nice na de mais lii moom ay lii moom daal ay Europe la gën a xamee ay nitti yi foofu la gën a xamee programme bi quoi ñu bëri xamul culture bi lan mooy culture bi daal comprendre soo ma defee kenn xamul daal sama culture bi lu mu tudd kenn xamu ko ah merci ba jékki-jékki après ma am benn spectacle may woowee si kaay woon sa bopp ay côté 2012 ans ah. euh, merci ah. yii public bi kaay gaañ ñoom dama woo ba pare ma ñëw ñu yeex ma dugal quoi xamul lan man mooy kan daal man tamit dama gis nit yi rek ma tiit dama tiit daal mhm. musuma ko joué musuma xam ay nit ku may seytaan daal xawma si loolu mooma après awali kii mooy nekkoon si ñuy bind ay artistes yi daal après ñu woo ma nee na daa am benn boy kuy ñëw fii singom la tudd lu muy def comme singom daal mhm. yaram bi dafa nang après ba ñu woo ma après ma lem dugg si benn valise après ñu indi valise bi teg benn booy laa ko programme si programme bi ñu teg rek kenn xamul kan lan moom fi nekk si valise bi daal ma ubbi ko sama bopp ba ma yeer rek ñëpp jàpp bopp bi tiit waaw waaw lii lan la après ñu commencé yuuku waaw ba ma def sama prestation bi teg fanta ubbi rek tànk yi ñëw indi ma naan tegaat ma jaakaarloo ak nit yi nee na yow ba ma pare def ma ay démonstration damaa tiit si niti daal lu ñuy wuyu kii yooyu noonu ba ma kii tuuti rek après ma jugaat ma dem rek ba ba bi pare après maa ngi génn rek nit yi yëpp wóor ñëw si buntu ni laal sama yaram bi xanaa yow nit nga wala jinne nga booy da ngaa takk dara wala loo sang akuma man kay lan ñii lu muy wax xam nga dégguma olof après keneen ki nee da ngaa sangu ay kii quoi si poul quoi ñu expliqué ma maa ko non man sangu ma dara ñu may posé question ba jékki-jékki kii mu ñëw génnee ma si biti jël taxi ñu dem sama gàlle ba affaire bi passé après sama awali mu dem sama gàlle waxtaan ak sama mbokk yi moom moo ma jàppale daal bu baax a baax jàppale na ma bu baax a baax. sama premier spectacle. bu maam ay ay kii nekkul spectacle boobu émission la. fan. Sen TV. si émission par Seck Diallo. après. ay côté 2013. waaw si 2013 laa commencé feeñ daal bu baax. ci télé ah? waaw waaw ay 2012 yooyu damay génn nii rek mais feeñu ma woon ay si télé. après ma jóge waati fa rek tamit ma ñëwaat rek par Seck woowaati ma nee na damaa bëgg tamit nga ñëw fête de la musique de Guédiawaye vraiment quoi ok. après sama boobu tamit toujours 2013 la woon. waaw toujours après sama ménageur bi dem lijjanti ko ñëw nee na tamit amaat nga beneen spectacle buy am kii géejawaay vraiment collègue amul problème ñu demaat tamit ñu joué fa ñu jógewaati fa tamit paak seex demaat euh, si TFM xam nga foofu la jógee dem TFM après fekk damaa demoon Guinée après sama ménageur bi woowaati ma fekk tamit foofu amaale na ay spectacle yu bëri sama ménageur bi foofu la demoon lijjanti ko lépp ñu def foofu ay spectacle yu bëri tamit foofu Guinée après ñu jugewaati fa ñëw fii tamit ñu woowaati ñu tamit si fa kii yeewu leen waaw yeewu leen après ñu joué fa fekk euh, daal ñu bëri ah joué na mais man dama tiit si benn affaire daal xam nga daal nit yàlla moo ma may lii daal mhm. yaa ngi dégg lii moom ñu bëre xamuñu lan mooy sama lu may def daal ku ma gis presque da may wax xanaa yow gaañ ngir yàlla waxal ma lu leer essayer da ngaa takk dara wala yaa ngi sàng li ngay def nii lii moom du dégg mais dégg la nit ku ne yàlla am na lu ko may. xam nga lu tax dama simmi sama yére bi def clip bi dama bëgg senegal ñu gën a leerale lii moom lu doon si man daal yàlla moo ma ko may. lii yàlla moo ma ko may daal takkuma si dara. waaw maa ngi si ay gañe kaalis mais xam nga Afrique fii ñu bëre xamul culture bi mooy lan xam nga fii ñu ko gën a gëm ay rab ay woy ay comme ça ay affaire yooyu aar bi mu ngi soor a ñëw si senegal comprendre nga ñii def nañ ay tournée si Afrique fii si fii si mais mosuñu génne dem si ay yeneen kii quoi. merci extérieur. non mosu naa am si grand théâtre ay. ay ay 400000 premier kii nii bi mu ñëw na ay gagné ay 400000 deuxième bi tamit gagné woon na ay 400000 loolu si Djiby Dramé bi la woon grand théâtre la tamit TFM suñu ñëwee foofu ñoom tamit day fay Sen TV tamit day fay ay ay émission yooyu ay mille ay cent ça dépend daal non si xaalis bi xam nga lu may defee si xaalis bi man kaay damay dama jëndoon ay programme ay fasul en attendant xam nga artiste soo buggee si nekkul spectacle fu mu am rek da ngay joué nga am 2000 wala 3000 da dangay yàqal sa bopp man damaa gum sama bopp comprendre nga tamit sama ménagère loolu moom la ma expliqué nee na jarul ngay yàkkamti yàlla jour bu mu ñëwee da ngay concentré li ngay def man fasul daa nekkool damaa jëndoon ay affaire fasul yooyu maa ngi si ay waaw fasul ah, mooy sama métier di exactement fast food mais soo ma wàccee si fast food damay wàcc rek ay côté zéro ma dem tamit xam nga zéro damay wàcc dama expliqué sama bu may nekkandoo sama ménagère bi moo demoon mhm. expliqué ko nee na yow waroo nekk rek si fast food nga nekk rek ay nekk ni ay jaay il faut que nga jaay nga am tamit li ngay def spécial nga taxaw li ngay def daal mun na ma dundal mais du Afrique fii kese quoi il faut que waa waa àdduna bi yëpp ñu gën a ma jàppale ba ma dem ay extérieur ay yeneen position mhm. instant ni aw ma si loolu tamit amoo guma ko mais Afrique fii moom ku ne mu ngi koy woo sama ménagère ay kaay leen fii kaay leen fii mais xam naa moom publicité bi moo xaw a desoon tuuti mais man daal lu ma yor dafa bëri lu ma wone nii mun naa wane lu gën a garaaw loolu. ay ñu may contacter dafa bëri mais xam nga man duma ay encaissé ay ay ay appel quoi sa ménager moo encaissé loolu. ay tubaab la tamit amoon na ay spectacle ñu bëri ñu koy woo fii expliqué ko mais yooyu yëpp ay Afrique fii la. waa Sénégal yooyu ñëpp ngeen jàppale ma bu baax baax ma am concentration lu may def mais xam nga tamit. lu may defee nii soo fekkee am naa ku ma may jàppale bu baax a baax jàppale sama ménagère bi mais ba léegi amuñu ay visa fu ñuy commencé ay voyage ay si man daal yàlla lu ma may daal damay nelaw rek ngént may gën ay comme yu ñëwee si man daal yàlla moom ma koy woon soo ma yeewee rek damay def comme noonu rek mu ñëw loolu man saa jaaxal na ma li ngay waxee noonu man saa jis nga sama clip bii ni soo fekkee maa ngi koy seetaan ni dama koy seetaan ba jékki-jékki ma ko noonu est man moo ko def may xaw a kii quoi xam nga loolu yooyu ay may yàlla rek moo koy def non sama yaram bi moom du metti benn yoon benn tamit dem ay hôpital ay pikiir nii mhm. depuis la nekk xale bu ndaw sama papa dam may jox ni kaalis yenn saa damay feebar ba jek jek jox ma kaalis mais dama koy dem lekk du dem ay hôpital xam nga lu ta ñoom sama famille mhm. xamuñu programme bi lan mooy sama lu may def tuuram bi sax xamuñu ko ñoom daal xamuñu sama culture bi lu muy demee kii moom ma commencé woon ay yoon sama ménagère bi sama sama commencé naa def sa démonstration ba jékki-jékki sama yaay nee na xoolal li ngay def nii am na boo xamante ne fu ñuy seetaan ay yeneen position ñu bëri da nga koy def koom li ngay def nii mais danga koy gëm rek nga respecté jaru ngay yàq da koy gën a concentré ba jékki-jékki jour bu ma tayu ma demoon Guinée sama papa mu ngi fa woon après ma ñëw expliquer ko moo ko ah am naa ku ma may jàppale si ay yeneen position